nekk en ligne après àggali Fatou. Mm-hmm. allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam. képp si. waaw sëñ bi noo tudd ak foo ñu maa ngi tudd Saliou Sène di woote Mauritanie. waaw waa Mauritanie kontaan naa ci yéen de maa ngi lay nuyu di la dalal ak jàmm. ñoo ngi rafetlu émission bi bu baax a baax. yéen a ko moom. parce que ñun de. Mm-hmm. wax dëgg yàlla comme li ngeen di wax de moom la daal yàlla xam na ne métti na métti joo xam ne yàlla rek a ko xam. dëgg la. te ñun dañoo xool suñu ambassade daal mel ni parce que dañuy bunu xatal fii bunu xatal bu métti boo xam ne buñ demee foofu kenn duñu faale. Mhm. kenn duñu recevoir ñu nekk ci dund boo xam ne yàlla rek a ko xam. Mhm. ñii comité bi fi nekk jàppee ñu ñu ay doom ñu ay doomi aadama da ngay génn def la yoo xam ne yàlla suñu borom rek a ko xam. Saliou dogguma la waaye yow ci lan ngay liggéey foofu looy yëng foofu. man maa ngi dibiteri lañ fi yor. dibiteri nga yor. waaw maanaam yan façon coono jafe-jafe ngay am foofu. maanaam guddi gi booy. comme ça boo timis timis rek laa la wax boo ko doxantoo fii bu ñu la jàppee andi lay problème ay sa problème mu papier gi ne yoo xam ne loo xam sax noo koy waxe te nekk nga en régle ak papier yeeg yëpp. wallahi en règle kay. dëgg la Saliou waaw xam naa nag euh, émission bi moom loolu moo ko fi tax a toog rek pour Sénégal. wax li nga xam ne euh, moom la ñuy andi lan ngay euh, intervenir par rapport à Saliou li mu wax euh, Mauritanie la. waaw li may intervenir par rapport à Saliou mooy que Sénégal du ñu ay voisins yoo xam ne dañuy nekk ñoo xam ne dañu bokk ñoom. Mhm. dëkk mel ni Mauritanie dëkk mel ni Gambie. dëkk mel ni Maroc voilà donc mhm. benn lañu. donc euh, je crois que dëkk yooyu c'est des pays sensibles. Mhm. Euh, un sénégalais bu nekkee Mauritanie dafa mel ni mi ngi mi ngi mi ngi dëkkam. dëkkam parce que daf fay làkk wolof. di gisanteeg naari di mhm. làkkanteeg ñoom wolof di gis ay mbokkam. dëgg la man woo. moo bu ñu la fa defee yenn yi rek day day xaw mhm. parce que yow nga nekk ci dëkk ne fii sama dëkk la. sentir sa dëkk la xam nga tàmm dëkk ak fii au niveau du Sénégal gis ñoom ni ñuy intégré. nga ñëw seen dëkk ñu lay jéem a marginaliser ak day nekk lu doy wax daal. moo tax je crois que daal euh, dëkk yu mel noonu jéem xool yan genre commission yenn yan genre relation la ñuy tegaat. revoir les conventions même. pour ñu xool. Mhm. nan la ñuy xool defaat defaat defaraate relation yi. parce que mhm. immigration mi ngi koy commencé yàq. Mhm. waaw yëf mi ngi commencé yàq problème yi bëri nañu nit ñi sës nañu. Euh, te comme ni ma la ko waxee kenn mënul tere nit ñi ñu dem. il faut ñu tukki di wuti voilà donc dëkk yu mel ni nekk suñu ay dëkkandoo di dëkk yu jege di dëkk yu sensible. ñu seetaan ba relation yi di yàqu ba tax nit ñi di intervenir di wax yenn yi ci diggante bi moi je crois que c'est pas encore trop tard il faut que autorités yi gën a ñaxtu mhm. ñaxtu problème yi waxanteeg seen yeneen naatango yi xool na la ñuy trouver solution mhm. ba ànd bi gën a rafet mhm. ànd bi gën a rafet ndax Sénégal ak sous-région am mhm. ak euh, ñëpp ñoo xam ne rek euh, ñoo nekk dend ak ñun moo mhm. xam muy Mali mhm. sénégalais bi nekk Mali sénégalais bi nga xam ne moo nekk Gambie sénégalais bi nekk Guinée sénégalais bi nga xam ne moom moo nekk Maroc comme ni nga ko waxee ak réew yi nga xam ne ñoo ko wër yëpp dafa nekk boo fa demee da nga war a sentir ne yaa ngi Sénégal parce que relation yu am solo la dëkk yooyu am ak li nga xam ne moom moo di Sénégal ba tax na dara lu ñaaw euh, xaju fi yaa ngi doon wax sànq ci wàllu wàllu euh, forme d'émigration yi nga ne bi amoon Maroc mhm. avant ak léegi dafa am différence bu notoire boo xam ne am na ci dëgg la dëgg la parce que en fait Maroc avant euh, nit ñi fa daan dem dañ pour jàngi mhm. arabisants ah, yi parce que à l'époque mhm. xam nga Sénégal amuñu woon lycée ni université donc fii ku dem ba am yenn niveau yi rek Maroc ngay dem àggalee sa jàng wala Tunisie wala Égypte donc les premières ñi émigré ñooñu la woon après yaay euh, les étudiants da dem ab sa après y a eu des relations de mariage nit toog di fa sëy di fa am njaboot léegi je peux dire que dans tous les organes de presse yu mag yi au niveau du Maroc y a des Sénégalais qui travaillent ah là-bas on a presque une vingtaine de journalistes sénégalais maintenant au Maroc pour te ah dire donc euh, y des Sénégalais directeurs de société mm-hmm. donc dañu dañu dañu soxla main d'œuvre sénégalais mm-hmm. compétence sénégalais mm-hmm. tu vois même centre d'appel yi aussi à un moment donné centre d'appel yu Maroc nga fay nga fay fekk ay marocains tax mu am benn rush fii ko dégg rek Sénégal bu amee tuuti niveau en France rek ne dem naa wuti liggéey centre d'appel yi xam nga ba affaire yi commencé jaxasoo xam nga rëche bu amee rek yi fi day jaxasoo mm-hmm. parce que même naar yi seen bopp dañuy dem ba affaire bi ëpp leen loxo tu vois donc loolu moo xaw a jafe gérer daal voilà dégg nañ aussi que léegi xam nga avec le problème de la crise en Europe mm-hmm. Espagne joxatul Italie doxatul mm-hmm. donc ñi daan demee été ji ay Italie ay Espagne yëpp léegi dañuy mois dellu si dañuy dellu si ñi dañuy toog xam nga jéem a xool ban la dem Europe donc yëfi jaxasoo jaxasoo voilà jànk itam commencé donc maintenant yaa dafa jaxasoo yaa beneen forme d'immigration moo am donc même autorité seen bopp ils se retrouvent pas moo tax je crois que il faut ñu réorganiser waat affaire yi waxtaanaat xool il faut ñu ni ma la kenn mënu leen tere tukki kenn mënu leen tere tukki il faut que ñu organiser ko il waxtaan ñoom bi war a commencer il faut que sensibilisation bi def ko au niveau du Sénégal mm-hmm. comme ça kuy dem nga xam ci lan ngay dem Mhm. yenn euh, def ngeen temps yi rek benn euh, foire. Mhm. Euh, foire bi yaa ngi wax ne période bi dafa coïncider woon ak manifu sénégalais yi. Mhm. xaw na ko entaché tuuti rek. mais foire bi yan retombées la am feedback ban ngeen ci am ci foire bi feedback bi xanaa di sant yàlla rek di sant yàlla di profiter ci plateau bi di di di féliciter monsieur Mangane président groupe Soleil international. muy sénégalais bu bëgg réewam gëm ko bëggoon dem jël Sénégal jaay ko Maroc il est parti sans accompagnement institutionnel. ni euh, sponsor ni rien du tout donc def benn foir bu extraordinaire jël 1000 mètres de de de surface. Mhm. aménagé ko ay stand. Mhm. jaay Sénégal exposé fa suñuy art indi fa suñuy artistes comme ñoom Salaam ñoom Saneex ñëpp ñu ngi fa woon. Mhm. même seen ministre euh, Youssou Ndour bu TFM euh, non ministre du du tourisme est venu waaw comme officiel. pour te dire et tout ça il l'a fait sans sans sans sans sans sponsor ni accompagnement institutionnel. donc mu ma koy félicité franchement muy ku ku bëgg dëkk bi. ndax loolu moom def ko rek. bëgg Sénégal moo tax nga def ko. fépp fu waay mën a nekk da ngaa war a fexe rek. jéem a jaay la destination sénégalaise Sénégal. Euh, jaay li nga xam ne moom mooy euh, suñu culture. jaay li nga xam ne te neneen ñi amuñu ko. dëgg la mu nekk loo xam ne euh, lu am solo la dëgg la naay rafetlu ko mu nekk fois bu réussir bu extraordinaire dëgg dëgg ñun sax xalaatu wuñ dina demee noonu naari kontaan trop mhm. franchement salaam def fa soirée bu extraordinaire nit ñi ñëw ne exposé nañ fa def nañ fa ay forum y a eu des rencontres entre entreprises marocaines entreprises sénégalaises mhm. beaucoup d'échanges euh, naari kontaan même le ministre nous a promis que la prochaine fois le ministre mhm. dinañu accompagner mhm. ñu koy rafetlu lool di profité ci plateau bi aussi pour remercier pour ko mu mel ne c'est des initiatives à renouveler yu am solo la déjà euh, li nga xam ne moom moo xewoon fële euh, ca Maroc muy foire le nga xam ne nag Sénégal nee la booy dem rek jéemal fexe dajale lépp lu am ci wàllu côté société côté culture aada côté cosaan côté mm. lépp li Sénégal am muy lu gën a fort nga jël ko yóbbu ko parce que tamit boo yóbbu yóbbu li nga xam ne moom moom moom moo amul feneen. parce que mënoo dem di euh, def leneen. donc foire bi nekk na loo xam ne ponk bu am solo la. Mm-hmm. Euh, mu mel ne tamit seen association bi nga xam ne yéen a ngi ko établir muy euh, les les femmes yi nga xam ne ñoo génnee ci diaspora bi les femmes leaders. Mm-hmm. leader bi foog ñu préciser ko. Mm-hmm. leader <laughs> dans leur domaine fan ngeen ci toll seen association boobule. ñu ngi toll actuellement nous sommes en train de mettre en place des projets yoo xam ne bientôt on va essayer de de de de les lancer ñu ngi ciy liggéey nii. waaw ñu ngi ci liggéey ku nekk am na ay projets yu la jox nga nekk ci ci liggéey on est en train de faire des business plans pour démarrer bientôt nos activités mm-hmm. euh, maanaam euh, commencer teg daal projets yi en exergue mm-hmm. commencer liggéey ci loolu daal lañ toll fi mu nekk nii mm-hmm. et ça c'est pour bientôt incha allah aujourd'hui ki nga xam ne moom moo toog euh, di seetaan Euh, wala mm, mu toog nekk ci benn dëkk lu yàgg euh, faatu euh, toog nekk fa ci ay jafe-jafe mhm. nekk fa ci ay problème mhm. bëgg dellu siwaat le regard la société tere ko wala muy xalaat ne bu ñëwaatee ci dëkkam Euh, dinañ ko xoolee nenn ni lan ngay lancé ban message ngay wax kooku nga xam ne mi ngi toog boo demee di seetaan li nga xam ne moom moo di TFM di la gis yow nga xam ne euh, dund nga loolu mm-hmm. te ñëw nga sa réew nee naa la mm-hmm. ñaaxi côté yi moom moo am kuy dem mm-hmm. yaakaar rek nga am waaye laataa may eggali damay jël téléspectateur yi nga xam ne moo nekk en ligne euh, bëgg a dugg ci émission diaspora allo allo allo salaamaaleykum waaleykum salaam soxna si ngeen def ñu ngi sant yàlla bu baax tur bi naka la foo ñuy woowee waaw tur bi nag moom xam naa ne dama koy leb. ñii leb bari na tey de <laughs> waa di ngeen ñu ko fay rek. waaw da ko fay. fooy wootee. Paris laay wootee. Paris ngay wootee waaye ñu ngi lay déglu. Euh, sànq dama déglu léegi ndaw si mu ne. Mhm. am na nañu sax représentant boo xamante ni par exemple ñuy wax ministère. allo. mais diaspora bi bu ñu utaloon président sax boo xamante ni dañ koy def ko jaay sax diaspora bi du sotti. Hmm. lu tax parce ñun ci suñu jëmu bopp ñoo war a yar suñu bopp. Mhm. parce que li nga xamante ni moo am Sénégal. Mhm. bu fekkee kuy dem fenn rek yar na ko yóbbaale. Mhm. ci coono la ñuy def. bu ñu xoolee Khalifa Sall li ñuy liggéey bëgg a dindi marchand ambulant yi Sénégal. dangay gis koo xamante ni day ñëw fii ñu nekk France nga ñëw indi ko fi bëgg a teg li nga xamante ni moo nekk Sénégal ñëw tubaab bi toog nga gis boutique gu Gucci nga dem uti fals ñëw teg ko ci bunt boutique gu jàmbur. di ko fa jaay. Mhm. tubaab bi du ko nangu te kooku di fay impôt di fay tax. Mhm. du la ci bàyyi. Mhm. nga gis toog gis nit ku ñuul taxaw ci diggu mbedd jàmbur di saw ci buntu kër jàmbur la am Sénégal amul fii. nit ñi ñoo war a yaraat seen bopp li xew Sénégal Sénégal la xew dëkk bu nekk ak lu waxoon. bu ñu ñëwee fi ne bëgg a fekk tubaab bi wala dem ci dëkku naay bëgg fa def naka su dul noonu. loolu ñoom li ci bàyyi. doono bu ñu am nag bu ñu yaakaar ne autorités yi dañuy ñëw taxaw tout le temps autorités yi tamit du ñuy ñaan ba ñaan à la fin dem ba benn am na yoo xam ne doo mhm. que booy ñaanal da ngay ñaanal ku ku nekk ci lu yoon mhm. mais boo nekkul ci ñoo yoon kenn mënu laa ñaanal mhm. mais nag ñun ñoo war a xoolaat suñu bopp yar suñu bopp jéem a xool li nga xamante ne mooy yoon ñu di ko def parce que déjà même affaire conseillère yi ñuy wax la majeure partie sénégalais nekk fi respecté ñuy liggéey ci consulat yi. pourtant bu ñuy liggéeyanti seen liggéey fii da leen a jaral ñu dem ci préfecture yi fanaan fa yenn fa bu ñu duggee jàkkaarloog tubaab bi dañ naan muut loo leen wax benn këyit sax bu manqué dañuy dem wuti ci ko te doo leen ko waxaat. mais boo ñëwoon taxaw léegi ci consulat bi di demande benn këyit man dem naa fa taxaw. Mhm. fekk fa un jour nit muy wut benn affaire ñu ne ko noonu li indi manqué na matul dama nga wutiwaat mu bëgg koo lijjanti ñoom ni ko non amul lijjanti demal bu matee nga ñëw bu matul nga dem mhm. mais duñ ko fa xaar boo matul ay saaga ndey lañu fay fekkale mhm. loolu moo dul yoon mhm. ñun jëm bopp ñoo war a respecté suñu bopp waaw buñ ko mënul nag dara du sotti lañu jëlee moom lañu yaakaar ne kuy gàddu sa valise da nga koy dëkk ko ci dëkku jàmbur duñu mës a dëkk ci jàmm ak tubaab yi mënta nekk wasalaam merci beaucoup jërëjëf. merci beaucoup jërëjëf moom moomu wootee Paris euh, garder anonymat bi wante <coughs> andi na réflexion boo xam ne bu am solo la mu mel ne dañuy delloowaat ci jikko yi. Mhm. delloowaat ci yar suñu bopp te xam ne dëkk bu nekk ak loi am la. Sénégal sax loi boobu dafay warut am nag. loi bu xam ne lu la neex def tamit waru waruta am Sénégal ba daan day am feneen ndax Sénégal tamit lu baax la ñu bëgg. Fatou non li mu wax moom bu dëggu wér péng la dëgg dëgg ñu koy rafetlu waaw intervention bi franchement c'est une très belle intervention mhm. wax na lépp wax lu rafet waaw mhm. dëgg la léeg dëgg moom léeg-léeg danga da nga ciy jaar mhm. doo ko doo ko doo ko ragal doo ko ragal voilà mais wax nañ ko fi boo génnee sa dëkk dem beneen dëkk da nga war a nekk sa ambassadeur dëkk waroo jël sa li nga jëlee fii naan maa ngi koy jéem a yóbbu loo def ñu ne sénégalais ba la sénégalais parce que boo demee pour wuti da nga bëgg a tekki bëgg dara mhm. xam nga demoo pour wuti pour yóbbu sa jikko bu ñaaw mhm. da ngay dem pour wut lu bees xam nga wut demin bu bees ak doxalin bu bees mhm. te loolu tamit boo demee dem ci dëkk fekk tam ñu deg seen ay loi da nga war a topp loi yooyu boo ñëwee ñu ne nga gis ko da war a xam ne que c'est interdit ko def donc comme Sénégal rek même Sénégal mais gis nga comment ça se passe c'est quelque yooyu nag ñu nekk ay dëkk yu mel ni Maroc dañu nekk ay dëkk yu organisé donc boo demee tam nga war a euh, topp loi dëkk bi France pareil Italie pareil donc loolu la daal wax waaye ni mu ko wax na lépp. mu mel ne changement d'attitude ak comportement dafa jot nag fi ñu nii kenn ku nekk rek boo wéeteeg sa bopp nga xalaat ni lii looy def rek c'est que mm. patriotisme bi nga xam ne moom la nit ki war a am pour mm-hmm. fonk dëkkam mm-hmm. waaye yaakaar naa ne ñi ngi ci yoon bi ndax gis naa ñu delloo si yenn valeurs yi nga xam ne moom la la wax mhm. maa ngi doon wax sànq benn appel boo mën a lancé ki nga xam mhm. ne dafa bëgg wàññeeku te xamul nan lay jaar mhm. ndax euh, Sénégal nee naa la <laughs> le regard de la société dafa am solo mm-hmm. bu baax a baax ak le paraître mm-hmm. euh, boo ñëwee ci dëkk dem immigré wala nga dem uti mm-hmm. euh, boo defee ñetti fan sax ñu yaakaar ne tekki nga yor nga lu ne te àddina bi dafa métti fi mu nekk nii amul garab yuy sax ci euh, xaalis buy sax fu ne ba nga koy for ku ci nekk rek yaakaar nga am booy dem booy xalaata ñibbi si nga ne ah bu ma ñëwee dinañ ne kii de dóorul faywul ndax dem na ñëw indiwul dara ngay xalaat loolu ba doo xollu la arrangé des fois nga nekk ci situation yu métti lan ngay wax kooku toog di seetaan waaw KEPS nag loolu yaakaar naa ne léegi euh, sénégalais yi nekk fii au niveau du mm-hmm. Sénégal léegi ils sont conscientisés xam nañ ni que léegi Europe dootul Eldorado mm-hmm. Amérique dootul Eldorado mm-hmm. léegi xam nañ li xew moi je crois qu'il y beaucoup de sensibilisation qui ont été faites à travers les médias ay sketch théâtre ak yooyu yëpp léegi je crois que sénégalais yi commencé nañ xam léegi li xew donc euh, ñu nekk à l'étranger bu ñu bu ñu nekk di xalaat le regard de moi je me dis euh, li olof naan boo. kon su ma la déggee communication bi ci sénégalais yi nekk fii te mosagu ñoo tukki foofu lañ ko war a accès. bien sûr ñi nekk fii lañu ñu war a préparer mais je crois que. ñi dem ba pare ñi dem ba pare waaw war nañu am dépassement boobu. Mm-hmm. et puis nit ki tam dañ ne boo demee ba xamatoo fa nga jëm nga dellu fa nga jóge waaw parce que ñun ñëpp fii la ñu dëkk. kuy mm-hmm. dem da ngay wuti pour indi ci dëkk bi soo demee ba nga xam ne wut nga yàlla deful ne. amoo donc xëy na sa wërsëg nekkul foofu da ngay dellu si mm-hmm. parce que Sénégal comme ni ma ko waxee ci benn émission c'est un marché vierge y a de mm-hmm. choses à faire mm-hmm. même boo génnee Sénégal ñaari fan dem ci dëkk mel France wala nga dem dëkk mel ni Italie yow xam ne dëkk bi am na lu mu manqué donc yow soo ñëwee war a indi fii di nga am loo jàng fan soo génnee sa dëkk rek di nga am loo jàng boo ko xaalis jëlewoo fa dara di nga fa jëlee xam-xam fa jëlee xam-xam lu mu ndaw ndaw ndaw di nga ko fa jëlee donc je me dis que lu ndaw am dara loo ko mën sa dëkk donc nit am euh, nañu am si bu nee ba nga xam ni. léeg-léeg nga dellu si dañu ñu ñu yaat la de ne ñëw na indiwul dara. waaw loolu nag nga nga nga nga bàyyi sa yàlla sa sa. diggante xool li la arrangé waa xool li la arrangé. parce que ba le passé ñu ngi def émission am benn euh, waaju woote. Mhm. ne gis na kenn euh, New York muy yalwaan. Mhm. loolu dafa dafa métti loolu. dafa metti te nee na sénégalais la te mbokkam yaa ngi yaakaar ne moom mi ngi liggéey. dëgg la xam nga loolu tam mooy am na ñoo xam ne ñu ngi nekk ci kaw ba pare te terewul euh, ñu nekk ci ay coono te xalaatuñu sax naan dañuy ñibbisi. dëgg la dëgg la dëgg la. Euh, ñu jël beneen téléspectateur bi nekk en ligne allo allo. allo. allo sëñ bi. allo bon waaw da wàññi télé bi da ngay xaw a wàññi tele bi tuuti ndax ñu mën laa dégg dégg gi gën a yem rek kay woote de ah? waaw sama mbokku jigéen ñi de tey dégguma leen <laughs> xaw ma lu xew ñoom Aïssa Chicago ñoom ñëpp dégguma leen tey allo allo sëñ bi na nga def allo allo waa xam naa du ñàkk euh, mu dellu si euh, ci seen émission diaspora ni ma leen ko waxee lundi bu jot ngeen mën a ñëw waaye dafa mel ni mi ngi ci ligne bi ba léegi allo coupé na waaw euh, du euh, ñàkk rek ñuy lancé waat appel di wax ne participer leen xam naa euh, li des ci émission bi sax taxu ko bari noonu waaye woote leen daal di mën a waxtaan ak suñu invité tey ah, ma leen di fàttali moom moo jiite rek les femmes leaders ussi de la diaspora muy faatu mataat Diop ñu am mbégte di ko woowaat fii ci plateau bi li nga xam ne moo ko sabab nag du lenn lu dul jafe-jafe ya nga xam ne doomu sénégalais am nañ ko fële ca Maroc te moom mu nekk Maroc 23 ans maîtriser ko bu macha allah xam li nga xam ne moo fa jot a xew te booba sax fekk na ne ma ngi ko fekk ca dëkk ba ci yeneen i euh, euh, manifesta yeneen i yitte muy foire ba nga xam ne fa la demoon waaye ñu jël beneen téléspectateur bi nga xam ne moo nekk en ligne allo. allo allo oui. salaam sëñ bi noo tudd ak foo ñuy woowee. en tout cas je voulais dama bëggoon garder na ah, de da koy leb waaye lebal nañ la ko. fooy wootee maa l'étranger quoi maa ngi wootee France. France waaye yow rek la ñuy déglu. voilà maa ngi Paris quoi. alors dama bëggoon intervenir euh, parce que bon en fait c'est par rapport surtout aux nominations là. Mhm. alors euh, au niveau des services consulaires quoi. Mhm. Alors on a constaté que depuis quelque temps il y a des nominations dans les services consulaires mhm. et il y a beaucoup qui décrivent certaines nominations yoo xam ni vraiment c'est pas trop fondé quoi. C'est basé sur Kooku nag moom sa pose un problème à la diaspora aux gens qui vivaient à l'étranger quoi. alors léegi ñun li euh, ma doon xalaat mooy aussi est-ce que service consulaire yi waruñu am yeneen euh, prérogatif c'est-à-dire di dimbali ñi tuuti par rapport euh, vendre le Sénégal quoi au niveau touristique. Mm-hmm. am ay genre espace yoo xam ni dina permettre sénégal yi nga xam dañu am seen doom ñu juddoo fi. di xam fan la ñu jógee. Mm-hmm. créer ay culturel xam nga yoo xam ne dina mën a recevoir euh, les enfants les fils d'immigrés mhm. ñuy ñëw xam seen euh, aada. Mhm. fan lañ jóge yooyu dafa am solo quoi. Mhm. je pense que war nekk ay chambres d'enregistrement tout simplement quoi. war na nekk euh, service yoo xam ne tamit day tax vendre le Sénégal tubaab yi di fa ñëw di xool xam la moo xam di def ay jàppo ay film def espace yoo xam ne c'est des espaces d'ouverture quoi. c'est une bonne idée. service d'autres pays en tout cas man je trouve que ça peut permettre quand de mieux situer le pays, quoi, de mieux vendre le Sénégal. Quoi. Mm -hmm. En dehors de ça aussi, il y a aussi le côté social, peut-être qu'il faut développer aussi. quoi. Mm -hmm. C'est-à-dire de recevoir Sénégalais, étudiants, si nous avons des problèmes, nous expliquer un mhm. peu au niveau du a mhm. créer un service qui s'occupe de ça. Mhm. Et des services d'expansion économique. yoo xam ne dina permettre nit ñi nga xam ne dañu am seen ay projet ñëw di ko exposer di waxtaan ak euh, les autorités. xam ñi nga xam ne ñooy représenté Sénégalais yi regroupé Sénégalais yi. Mhm. seen association yi toog ak ñoom di waxtaan ak ñoom mhm. Mhm. xam wax ak euh, ñi nga xam ne dañu am ay daayira yu demee noonu daal man je trouve que dina permettre quand même nit ñi accaparer consulat yi dañ fi nekk mais souvent ñi nga xam ne dañu am ay kayit tubaab suñu fa demee c'est juste pour euh, euh, je veux dire xanaa ay élection yu demee noonu moo leen fay yóbbu quoi dañu toog ay at duñu teg sax seen tànk si consulat yi parce que duñ fa alors que seen doom yi fii la ñu juddoo Mhm. te je pense que dinañu soxla seen doom yi tamit di xam fan la ñu jógee. Mhm. Ah, c'est-à-dire théâtre espace yu mel noonu yoo xam dañ koy projeté ay film xam wax yoo xam ni on vend le Sénégal wane les espaces du pays xam wax ñu xam seen dëkk daal. Mhm. seen ay aada parce que yooyu mën na dimbali nit ñi. en tout cas loolu mooy sama xalaat maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen seetaan souvent aussi. parce que c'est très intéressant ce que vous dites quoi. xalaat bi rafet na tamit ñun ñu fi nekk nekk à l'étranger aussi. ci mhm. xam lan mooy problématique yi am autour de tout ça. absolument en tout cas jërëjëf et puis je vous dis bon courage di leen encouragé ñu continuer émission yi mel nii de remercier TFM. merci et puis ñu ngi xaar yu sundur aussi sur la ah. scène. namm nañ ko. <laughs> xam naa dégg ko. <laughs> merci beaucoup ah moom mi wootee France garder anonymat <laughs> mais euh, émettre euh, benn idée bu pertinente. Mm-hmm. boo xam ne mi ngi wax euh, ci ay place culturelle yoo xam ne dañ ko war a defar. pour ñi nga xam ne mm-hmm. souvent ñooy juddoo foofu. Mm-hmm. te du ñu am benn espace pour xam seen aada xam seen cosaan. wax na sax ba pousser la réflexion ci ay film yu ñu leen war a projeté parce que souvent. dañuy faral di am problème mu culture ñi nga xam ne dañu juddoo foofu la à l'étranger même bu fekkee sénégalais nga faatu. dëgg la dëgg la euh, muy proposition bu pertinente. Mhm. Euh, une très belle intervention. Mhm. Euh, pour revenir à sa ñun au niveau de l'association des ressortissants sénégalais bu fekkee mhm. dugg nañ dans les archives. suñu dernière semaine du Sénégal au Maroc on a fait ce mémorandum ah. projet de de d'une maison du Sénégal au Maroc. Mmh. Même euh, les autorités du royaume étaient prêtes à nous donner un local boo xam ne moom la ñuy la maison du Sénégal au Maroc. bu mel ni par exemple euh, consulat nekk fa. Euh, ñu mun fa def suñu activité culturelle yi suñu doom yi dafa jàngi alxuraan. xam fu ñu mhm. jóge. ñu fay organiser suñu manifestation culturelle di fa waxtaane di fa def daayira yi xam nga. di mhm. proposer ay produits touristiques comme il a dit. donc le projet a été ficelé au niveau du Maroc moom on est en avance sur ça. waaw et je crois que euh, association itam on n'est pas bête. Mhm. les associations font énormément du feeñ parce que dañoo bari. waaw ah, dañu disloqué. bu ñu bu ñu booloo xam nga jéem a boole idées yi jéem a xool nan la ñu ko en exergue ñun au niveau des en tout cas des femmes leaders issues de la diaspora ñun suñu xeex loolu la dañu bëgg lépp li nga xamoon ne comme forum la ak idée euh, mémorandum yi fi nekkoon yëpp ñu jéem a xool na la ñuy def ba récupérer ko mettre ko en exergue mais ñaata association ñoo am foofu association des sénégalais euh, yu nekk Maroc fépp ci àdduna ñaata moo am Maroc déjà non Maroc déjà mun naa ne bari wuñu association ah waaw bari wuñu association parce que ak amoon nañu euh, force boo xam ne tout le monde était derrière. franchement tout le monde avait adhéré. Mhm. il y a des étudiants aussi même bu ñu daan def ay manifestations dañ leen daan impliqué ci organisation yooyu. Mhm. Maroc moom mun naa benn jamono moom dëgg dëgg déggoo woon nañu. Mhm. la affaire yi commencé jaxasoo et puis y a des daayira yaa ngi fa. daayira tijaan yaa ngi fa dans toutes les presque les grandes du Maroc. am na ay daayira voilà am na tam fédération et puis ils sont mm. très organisés avec des sites internet et tout mm. ñun actuellement nii même bu ñu bëggee def ay yenn information communication yi c'est à travers les daayira malgré que association bi euh, le bureau arrêté na mm. mais ñu ngi continuer def suñu liggéey surtout dans le domaine social euh, ñu jël Fatou benn defe naa mooy nekk dernier intervenant bi euh, ndax li ñu cërale woon ci waxtu tuutee ci des ñu jël ko laataa ñu tëj émission bi lee allo allo salaamaaleykum maaleykum salaam noo tudd sëñ bi ak foo ñu woowee. Euh, France laa France laa nekk Assane Sow laa tudd. naka. Assane Sow Assane Sow waaw Assane yow rek la déglu. waaw képp maa ngi rafetlu torop seen émission bi. dafa am benn waaye bu wax sànq mais li mu wax lu am solo la. Mhm. parce que France euh, dafa am ay règles. Mhm. ñun ñun Sénégal loolu moo ñu manqué xam nga tuddee ak sa bàmmeel dëgg la parce que dañoo nekk si dëkk boo xamante ni lépp si yoon lay tegu mm-hmm. parce que bu ñu la nee gonteel mm-hmm. nga naan dix laay commencé te un nga romb mm-hmm. loolu tegu ko fenn du sotti du sotti mais xam nga jikko sénégalais moo bon sénégalais lu dul boppam taxu koo jóg mooy li waa ji wax ku bu tubaab bu la nee fii manqué na la. doo fa nekk di négocier. doo fa nekk di joxe dix euros doo fa nekk di joxe cinq euros xam nga tubaab lu mu xam këyit la xam bu la nee lii manqué amul képp même tubaab bi buñ ko nee. manqué na këyit dafay mais sénégalais moo xam luy yoon am amuñu lu dul branlon moo fa war a jeex looloo war a jeex Sénégal. mais tant que doxewuñu yoon dara du sotti dara mooy li waa ji wax rek boo ñëwee taxaw buntu kër jàmm sow Sénégal boo taxawee bu kër jàmm sow ñu ne waaye yow la tax ngay sow sow buntu kër saaga nday yi commencé. Mm-hmm. mais dama def ko France. Mm-hmm. amande la ci fekk. ah. ma ne amande la ci fekk wala. maa ñu foog la sax yow kuy dawal oto Sénégal ñun la takkal sa ceinture nga ni doo ko takk. policier bi waxante yow nga dagg saaga ndey wala nga ne man am naa branlon dama jëli sa branlon mais kay def ko France du la ne bu la policier séenee rek takkoo ko rek wala téléphone au volant quatre-vingt-dix euros plus quatre points de waaw euh, moom soow euh, ñi ngi koy euh, jaajëfal mooy suñu mm-hmm. dernier intervenant bi mm-hmm. mu nekkoon ci point bu am solo boo xam ne dañuy delloowaat rek ci defaraat jikko yi mm-hmm. muy man a keneen ak keneen ñu war a mën a changer attitude ak comportement ndax loolu moom mooy soubassement wu li nga xam ne moo di développement parce que loolu bu amulee moom day day day day daal di jafe faatu li ñu cërale woon ci waxtu jeex na wante Sow fi mu jeexalee foofu laa bëgg nga jaare rek daal di tëjaale émission bi waaw euh, man nag euh, kii waguma j'ai pas encore perdu espoir. Mhm. parce que récemment nii ma demee maa ngi jël benn taxi pour te dire euh, marocain yi fi ñu teg. Mhm. dama dugg ci taxi bi rek taximan bi ne ma ma nuyu ko mu fay ma ne ma sénégalaise nga ma ne ko waa sénégalaise laa. ma ne ko tax nga laaj ma nag sénégalaise laa mu ne parce que yéen da ngeen da ngeen ngeen yiw. da ngeen set su ngeen di wax da ngeen di wax nànk da ngeen rafet te da ngeen baax ma ne ko ah yéen sa bëgg sénégalais yi foofu ma ne ko ñeneen ñi nag mu ne moom sénégalais yi moom franchement da ngeen particulier mhm. pour te di marocain fi ñu teg mhm. ba léegi am nañ fi ñu teg moi je crois que l'affaire n'est pas encore perdue mhm. malgré yi fa am malgré quoi yi fa am yëpp teewul ba léegi relation bi c'est quelque chose boo xam ne dafa nekk suñu diggante yàlla moo ko def déggoo bi moom yàlla moo ko def donc je crois que autorité dañu xoolaat comme ni ma la ko waxee mhm. dëkk yi nga xam ne ñoo nekk ci environnement suñu suñu suñu suñu jegeñu mhm. dëkk yu mel ni ay Gambie dëkk yu mel ni ay Mauritanie dëkk yu mel ni Maroc yu mel ni Mali mhm. xoolaat na la ñuy defaraatee ba relation yi ñëwaat parce que il faut pas que ay problèmes yu sew di ko yàq dafa dafa dafa dafa profond trop voilà donc euh, loo gis waxtaan moo koy moo koy defar déjà bu ñu libéré ñeenti fii parce que ba léegi waxtaan am na waaw benn at donc je que bu ñu toogee waxtaan seen biir solution dina am ñu jëm leen sensibiliser au niveau du Sénégal ñu xam ne immigration dafa am yoon dëkk boo fa demee dafa am ay yoon waruñu li nekk fii déjà li nekk fii ñu suñu bopp dañ ko war a changer xam nañ buñu demee ba na NTS parce que xam nañ nekkuñu ci dëgg bu Sénégal yi demee ba juge que dañu war a def léegi ay NTS ñun suñu bopp on reconnaît donc euh, Sénégal yi sont ñu wuti nouveau du ñu wuti nouveau euh, moi je crois que ba léegi valeur yi ñu ngi fi éthique yi ñu ngi fi mais waxtaan moo des nañu waxtaan jéem a trouver des solutions parce que rien n'est perdu d'avance en tout cas entre le Maroc et Sénégal je crois que c'est pas ces petits incidents là ñoo koy yàq voilà donc autorité nañu gën impliqué wu parce que nit ki tam bëgg nga boo nekkee ci dëkk ngay sentir ses autorités mm-hmm. voilà l'État aussi il faut que ñu jox plus de moyens à nos ministères là mm-hmm. pour ñu mun def seen liggéey correctement mm-hmm. ndax tukki moom kenn mënu ko tere nit ñi def ko tukki day continuer mais loo gis dañ koy <laughs> waaw nga def ci émission yu bëri et njëriñ bi nga ciy séntu yëpp euh, suñu borom def ko ci. dëgg la euh, kontaanoon nañ euh, ci sa ñëw vraiment mu nekkoon faatu Matar Diop rek nga xam ne moom moo jiite les femmes leaders issues de la diaspora ñu rafetlu nag xam bi nga xam ne andi na ko fii ci émission bi di kontaan waxtaan wi nag bu amee lenn loo xam ne nag dëng na ci jubluwuñ ci woon waaye li ñu bëgg rek mooy fàttali sénégalais fépp fu mu mën a nekk ci àdduna bi que ne am na foo xam ne war na faa mën a waxee ne moo ko naqari li nga xam ne moom lay dund li nga xam ne moo ko neex ndax nee la ñaari côté yëpp la ah. mhm. am na ñoo xam ne réussir nañ sénégalais yaa ngi ci àdduna bi mhm. di occuper poste bu nekk di liggéey bu ne di dem ci instance yi gën a mag ci àdduna bi fépp di représenter mhm. dignement le Sénégal wante àdduna ñaar moo am am na ñoo xam ne ñu ngi nekk ci ay jafe-jafe ñun nag defuñu ci xaaj ak seen képp koo xam ne rek sénégalais nga nekk euh, ci àdduna bi yow la ñu jagleel émission bi groupe Futurs Médias euh, di a jouer ci les clés euh, clé yi nga xam ne mooy def seen mbégte caabi mbégte euh, bu Khadija laa koy tuddee mille chaque jour benn scooter euh, par semaine ak euh, li nga xam ne moom moo di kër ak Peugeot 3008 nga xam ne mun nga ko gañee crossover ak loo bu mag a mag bi muy kër gi muy nag li nga xam ne moom lañ leen andiloon ci seen émission diaspora di remercier Marietou ak ki nga xam ne moom moo di Fatima ak ñoom kontu xale yi nga xam ne ñoo nekk ca salon Fatlay Kena muy Mamel maa ngi leen di remercier bu baax ci quoi coiffure bi euh, complexe euh, euh, di leen dig daje nag altine bi di ñëw incha allah di wax nag yéen ñi nga xam ne yéen a ngi seetaan ci diaspora bi Fatou Guéwal Diouf incha allah ci kàttanu yàlla mu ngay ñëw foofu ca Paris le 15 sénégalais yi nee naa la génne leen takk leen jàjj yi comme niñ koy waxee génne li nga xam ne moom moo di cuub yi génne lépp yéen ñi nga xam ne yéen a nekk Paris faatu Guéwal fas yéene def spectacle boo xam ne dana fas yéene des ci xel yi moom lañ amoon invité bi passé bu ko kenn wuutu képp kuy sénégalais diaspora bi fépp foo mën a nekk rek euh, préparé wul nag ngeen dugg euh, ci li nga xam ne moom moo di leen di indi rek ngeen jóge Italie jóge fu ne fëx nag jëm ci soirée Fatou Géwël bi nga xam ne mi ngi am le 15 samedi incha allah ñu ñaan yàlla àgg ceeg jàmm ak dugg ci bisimilah génn ci alhamdulilah euh, rabbil alamina di leen dig daje nag altine bii di ñëw ci beneen émission diaspora di remercier toute l' équipe technique ah guddi na fi mu nekk nii wante ñoom ñëpp ñi ngi fii Daouda Patrick ki nga xam ne moom moo di Muntaga Khadija ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ñu fanaan jàmm en suivant les programmes de la TFM